bismillahi rahmaani rahim bokk yi fi teew noo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ku santam noo ngi sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaajëfal sayxul xadim lu gën a bari ma yëkkati sama kàddu sëriñ Aliou Fall bu nduuf imaamu jumaa nekk notable ci dëkk bii di Nduuf ma yëkkati sama kàddu di tàllal loxo gouvernement Sénégal ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi di tax ma tàllal sama loxo nag moo di bëgg jàmm ci askan wi nga xam ne ñoo di yeewoo fii ci Nduuf ndax Nduuf daf di dëkk cosaan bu yàgg fii ci Bawol ci jamonoy Senghor sunu maam maam bu këri Jeey moo ko jiite woon bi mu fi bàyyi ko bàyyi fi doomam yu ñuy wax Baye Samba Jeey 1971 la wuutu baayam boobu di maam bu këri Baye sàmba Jeey moomu mu ngi wàcc ab liggéey daaw bi ñuy waaje tabaski waaye nag ci biir li mu doon liggéey liggéey boobu atam yu ñaar fukki at ak juróom mi ngi ko ànd ak doomam yu ñuy wax Ibrahima Jéey di ko doxloo lépp loo xam ne moo aju ci village bi ci biir dëkk bi ak ci digganteem ak gouvernement bi ñaar fukki at ak juróom Baye Samba Jéey moomu bi mu wàccee ab liggéey daaw ba léegi Ibrahima Jéey moomu moo fi nekk te gisuñu kenn ci po ñi dëkk ci nduuf ku tàllal loxoom na dama bëgg a doon chef di village keneen ba ci jamono yi nga xam ne gouvernement Sénégal ñi ngi wote référend wote référendum eh, ndaw yi nga xam ne ñoom la gouvernement bi di yebal fii ci moom lañu dal def liggéey bi leen gouvernement bi sant ba mu àgg ñu delluwaat waaye ci jamono yii nag nu nekk ci njàqare lu tar akuk jaaxle gu tar moo tax nu yékkati sunu kàddu li ko waral moo di danoo xëy benn bis rek gis benn politicien bu ñuy wax Cheikh Fall mu wax ne man maa leen di jiite wax ne maire moo ko sant loolu loolu nag moo di sunu jaaxle ndax yaa may yaa ma doy yaa may jiite day moo gën a wóor tey ma jiite la maa lay jiite far force nag loolu mooy leen jaaxal te dëkk bii di nduuf nag benn bopp la ku wax lu ñaaw wax ko sa mbokk ku def lu ñaaw def ko sa mbokk loolu nag tey ma jiitale nag far force mën naa jur lu dul jàmm ci ab dëkk te sunuy ndaw yi dëkk bi ñoom ñëpp takk nañu taxaw ne loolu du fi amee te bëggunu nag saytaane ci sunub dëkk te joboot jàmmay mbokkam loolu moo tax nu tàllal sunu loxo gouvernement Sénégal surtout ñi nga xamante ne ñooy amee wàlluk àtte bi ngir bëgg jàmm fii ci nduuf li nu bëgg daal mooy chef du village boo xam ne waa nduuf ñooy daje ba dëppoo ñëpp ne kii li wala boog li ëpp ne kii mooy doon chef di village ba ñu juboo ca mu doon sunu chef du village ñëpp ànd ak moom su boobaa itam ñu bàyyee ko ab liggéeyam mu liggéey digganteem ak askan wi digganteem ak gouvernement bi lii daal mooy sunu ak bëgg lii mooy sunu jaaxle li waral mbooloo mi bariwut nag dadi gone ak jigéen fu ñu daje werante ak coow mën te lii de saytaane moo tax nu gàttal ko nii waaye li gudd te gàtt daal jàmm dong la nu bëgg jàmm rek la nu bëgg noo ngi koy sàkku nag ci sunu kilifa ak réew sart yi nga xam ne moom la buur tëral ngir ñu di ci tànn ab chef de village loolu la ñuy sàkku ñu tànnal nu ci ab chef de village bu ko defee xel yépp dal maase ne kii mooy chef de village mu def ab liggéeyam ci dal ci teey ci jàmm joboot jàmmay mbokkam asalaamaaleykum wa rahmatullah yal noonu yàlla defal jàmm ku maire monsieur le maire waaw. loolu bi mu amee même tey jii sax dem nañu Ceneba ba mu amee ca fa ñaari fan lañ ci teg ñetteel ba ñu dem Ceneba ci sous préfet ngir bëgg jàmm am ci sunum réew ndax bëggunoo defal sunu bopp bëggunoo fajal sunu bopp comme loolu bi mu amee kooku wax ne moom mooy doon chef du village force man maa ko ne boo demee nga wax Fallou Fall moom mii di maire ne ko moom su fekkee moo am sañ-sañub wax ne ñu lijjanti chef de village gi na ko def su fekkee ki fi nekkoon di Ibra Jéey moo am sañ-sañ boobu woo mbooloo mi ñu lijjanti chef de village gi na ko def su fekkee sous-préfet moo amee boobu atte na moom mi nga xam en tant que maire na wax sous-préfet ñu lijjanti loolu ngir jàmm mën a am ci sunu dëkk ndax saytaane baaxut. moom mi di monsieur le maire ndaw ñëw ne ma nee na loolu am nekku ci ma ne ñii kon dem leen ci sous mi nga xamante ne yaakaar naa ne mooy kilifa gox bi ngeen wax ko loolu dem nañ ci sous ñaari yoon tey mooy ñetteel bi te bëgguñu ñoo kooku doon ak ñi ma àndal woote mbooloo mbooloo muy jóg ñaari mbooloo yi daje histoire am ci sunu gox loolu la nuy bañ ndax dëkk bi. ma jël yàlla dafa dogal dëkk bi man maa di imaamu ratib bi en même temps ma nekk maire commune bi. chef de village bi faatu depuis octobre euh, ñu toog octobre novembre décembre ba janvier dëkk bi amul chef du village kenn waxul dara man en tant que maire euh, war a sàmm intérêt dëkk bi défendre seeni intérêt ma jël benn arrêté désigner un délégué du village temporairement pour nécessité de service loolu yoon moom ma may parce que euh, loi 10 2013 bi dafa wax ne Euh, maires yi ñoo yam dignité les maires sont égale dignité les communes yi itam libre administrative la donc boo demee ci monde urbain maires yi fi nekk ñoom ñooy nommé les chefs de quartier mm, euh, donc te président nee na discrimination amatul ci réew mi maire yi yëpp ñoo yem donc maire yi nga xam ne ñoo nekk ci euh, monde rural euh, dañuy am droit désigner désigner euh, délégué de village loolu moo tax ma jël dogal désigner benn délégué de village ginnaaw bu ma diisoo nag ak chef de carré yi parce que dëkk bi di village Ndouf 183 chef de carré moo fi ne boo xoolee fi mu ne ñuy contesté tey ëpp ñu 16 chef de carré donc cent 167 chefs de carré yi ci des contesté wu ñu ànd nañu ci dogal bi voilà loolu moo tax dogal bi am na légitimité parce que euh, xam nga ne loi 72 ak décret d'application bi mu àndal euh, di wax affaire chef du village chef du village euh, sous-préfet moo ko doon proposé bu ko proposé sous-préfet préfet préfet ci boppam daal di jël dogal sous-préfet buy proposé day consulter chef de carré yi mais chef de carré yooyu avis consultatif rek la ñuy joxe. Euh, su fekkoon ne tey dañu delluwaat sax di appliquer loi boobu mm, mm, euh, kii ma kii fi teg moom la sous-préfet di di di proposer parce que moom moo légitime parce que nit ñi moom la ñu àndal moom la ñu bëgg euh, laaj na lu bari bi may consulter chef de carré yi dama leen di laaj kan mooy koo xam ne boo ko joxee alalu mbooloo mi ñëpp jot ci kan mooy koo xam ne juboo na ak ñëpp. te amul xaar ma yàlla ak kenn mën naa dugg ci kër yëpp toujours dañu may wax maseur partie bi dañu may wax Cheikh Fall bu ko nangu woon moo baax donc ki amal njariñ nit ñi nag te jubóog nit ñi mais man kooku lay tànn